ayca euh, Papa leen di fay di leen jaajëfal. Euh, ci match bu solo bi nga xamante ni euh, Wally xam teewaay leen jaajëfal di leen delloo seen wàccuwaay bon xam nga àdduna moom lii rek quoi Wally Seck ak Modou Lo jéewoon ci koor gi Wally Seck xooñu gañe mais lii match match match retour bi la quoi mu nekk loo xamante nii xam nga Sénégal moo toll fii fooy jeunesse bi divertir wu nekk ci beneen ah, nekk ci leneen quoi te lii dafay dafay dafay dafay dafay dafay dafay doxal dëkk ndax fii su ma li ma fàttali ki ne laa moo fi mosoon tëgg yàgg na pendant plus de vingt ans li concert amul parcelle kon bu ñu indilee Omar bu ñu indilee fii benn concert indi ko benn Waly Seck non mbégte la suñu quoi ngi xaar Waly la. ah non non non tey ñuy joué dañoo aay trop moo tax ma taxaw ci biti quoi waaw ah, tey ay joueurs ñooy joué quoi. d'accord am na solo euh, ñu wax tamit ci li nga xamante ni mhm. euh, moom la ñu a nemmeeku euh, mbër yi nga xam ne dañoo dem palais. Mhm. seeti ci président Macky Sall ginnaaw bi mu leen recevoir ñu gis nag coow li bari ban jàngat la ci am. waaw di jaajëfal rek loolu moom dama ci sawara a wax quoi ndax man pour man boo dëkkee ci quartier bu la chef de quartier wooyee da nga ko war a wuyu waxuma nag euh, président de la république ku mel ne Macky Sall dama leen soxla pour ñu waxtaan demuñu fa woon pour nangam pour nangam dafa ne woon pour joytu ay li nga xamante ne ay manquement lañu te amuñu kuñ koy joy ku dul Macky Sall kon bu ñu woowee bu demee dina war a wuyu ku yi da nga war a wuyu da président Macky Sall ku ma woo wax dëgg war a wuyu ji quoi président bu fi keneen nekkoon tamit bu wootee day bëgg ñun ñu wuyu ko dañ koy wuyu jiwaat waaw coow li nga xam ne topp na ci mbër yi noo ko jàngatee. ban façon coow la ci. Euh, ñi nga xamante ne dañuy wax ni warul woon na ñu fi nekk nag ku jiitu moom ñu ŋaañ la ku jiitu ñu ne sa taatu wuuree sa doq bu nangam bi mais il faut ñu xam ne un président de la République c'est un président de lu mën def rek bés bu nguuram jeexee day dem keneen day ñëw mais temps yi dinoo gis ne sénégalais yi seen ay kàddu seen ay doxalin dafa ñaaw trop ci ay xëccoo yu détails yu ndaw a ndaw ñëpp gëm yàlla xam ne euh, gis nga nguur yàlla moo koy joxe ku ko rëgg sa jëb yi da nga koy doon ala kulli yàlla mais ki fi nekk moom kuli sénégalais nga ne patriote nga da nga ko war a jàppale ba keroog mandaam di jeex ma loolu gis nga ni euh, moment nga euh, il faut ma wax leen benn affaire yow tey jii bu dee am nga borom kër wala dara yaa xam wala yàlla mayoon nga war lor bay mucc lu lay wax yàlla tiif yàlla ba keroog nga yàlla di la muccal contrairement bi dem boo ba génn dem ba war a génn àdduna danaa tuddal yàlla ba keroog ngay dog mooy il n'est jamais trop tard pour faire du bien nan bàyyi loolu il faut politiciens yi tamit bàyyi ñun Sénégal ñu xam ne ñun Sénégal la ku ne am nga droit faral ki la neex ku mu neex nga faral opposition ku mu neex nga faral pouvoir mais nan ko def ci yar ak teggin ndax léegi Sénégal kenn xamatul xar kanam ginnaaw nit ñi mën nañoo yàq nit ñi mën nañoo saaga ndey ni mën nañu def nangam mais du loolu Sénégal du loolu Sénégal warul doon loolu te it ku jaakaar ne loolu mooy tax nit ki avancé au contraire da nga koy yàqal da ngay yàqal ki nga xamante ne yaa ngi ci ginnaawam di ko saa di ko saagaal wala nga koy defal nangam nangam déedéet waleel yar ak teggin wax sa programme wala lii laa bëgg a def bu yàlla tuddee yaay doon président kenn muus da nga koy doon ndax Macky Sall nag maamam bàyyi fi bàyyi fi nguur gi moomu ko sénégalais yi ko fal bu demee ba leer ko ni sénégalais yi euh, bëggatuñ ko ñu folli ko wala bu yàlla ne nguuram fi lay yem ñu xam ne nguuram fi lay yem keneen ko xam ne moom la yàlla rëdd mu ñëw amul leneen mais kanamu sénégalais nag il faut sénégalais nag nit ñi wax ak ñoom trop c'est trop nit ñi il faut ñu wax ak ñoom loolu mooy dëgg tey déggul nga fan yee na day Papa Sow ku ne def pour lan man man dinaa taxaw benn ministre naa ma kaay utal ma nerf nit ñi war na xalaat loolu dimanche boo ñëwoon fii dajal naa fi mille personnes yoo xamante ne nii maa ngi utal ñun ci la ñuy dox ñun ci lu baax la ñuy dox ñun kenn war ñoo gis ci beneen xar kanam mais nit ñi danay diaboliser kuy ut nerf bi kañ doo taxaw ne fàng daaj da ngay làqatu te lan mooy nerf bi booy yi bu ñu taal ngay leen fay léegi kiy taal ak ki fay ku gën doon nerf bi mais Sénégal yi nañu yeewu aussi. mais naka ngay déggee papa li nga xamante ni mooy euh, ahlu lamb aussi. waaw ah. critique bu ñu def yàgg nañoo bëgg a gis président. bëgg président recevoir leen waaye jour bi ñu leen recevoir. ak moment bi ñu recevoir. Mhm. dafa mel ni dañoo la fois Macky Sall recevoir mbër yi président bu fi ñëw da ngaa recevoir mbër yi président fi mos a ñëw recevoir nga mbër yi Macky Sall amul amul kii bu a recevoir bu leen mën recevoir at dañuy recevoir. ndax it ba mu def huit mois. douze euh, douze ans. lamb laaj yàgg a jooy président recevoir leen. waaw yàgg mhm. dafa nekkoon amuñu ñu loon yooyu arène nationale. Mhm. Macky Sall dafa la nag gis waaye Seck demul président ñëwul président sponsor yi topp na ko c'est parce que lan mhm. ci lamb ji est-ce que promoteur yi fi nekkoon respecté woon nañ règlement ak contrat yi initié ak est-ce que man na est-ce que mbër mi respecté na règlement yi est-ce que respecté na yi il ñu xool loolu sponsor boo gis nag dafa bëgg a jaay ay produit am boo gis dafa bëgg a jaay ay produit mais affaire ñoo xamul mais ñi xam na ni amoon na ay manquement yoo xamante ne moo war a sponsor yi génn mais président Macky Sall du ci A du ci B léegi lu mu leen bëgg a utal gouvernement universel du force da fayeeku mbër mbër bu nekk da liggéey di fayeeku mais yow Macky Sall bu ñu mayee ay kër wala mu fajal ñu yow est-ce que yow mi bokk ci làmb waru yow mais ku nekk yaa war sa bopp kër ku nekk a faj sa bopp nañu wax dëgg gars yi leen bëgg teg ci doq état loolu du yoon ndax parce nit ku nekk yow yaa war a liggéey sa maximum sa kéemtalaay kattan ba yàlla defal la teraanga defal la sutura ndax changement am ngeen yaakaar am yi des comme ni ko sénégalais mais wax jee bari nag fii moom lu ne fàng kenn du ko daaji li fi Macky Sall def président yëpp jaadan ku nekk liggéey nga nag mais li fi Macky Sall def kenn def ko fi mhm. ci prison yi muy ci euh, muy ci armée bi muy ci leneen muy ci leneen mhm. ñun ñëpp gis mais bu nguuram jeexee bu dee 2024 lay jeex mais bu jeexee mu dem ak ay mbokkam keneen ñëw mhm. amul leneen mais Macky Sall liggéeyul moom war kenn war a ko wax ci réew mi man nangu naa ñu nekk si diaspora bi mhm. man xamal laa mën lan laa mën lan laa mën a ñan laa mën a gisee mën ne mën na ne Macky Sall liggéeyul mhm. mooy kii tukki vingt ans wala dix ans ci ginnaaw ñëw Sénégal ki ki kaso dix ans gis xamul ci biti mm. ak ki tëdd hôpital wala ki ay góor muuru mm. mais nit ñi nan wax am Macky Sall liggéey lu mu war a liggéey leneen ñu wax yëpp ay euh, yi nga xamante ne mbër ni dafa waaw mais dafa mbër moom suñu raq la amul luñ koy wax mm. bu gisee ni moom moom bu gisee ni fii la war a bokk bu bëggee bokk mu ñëw bokk bu gisee ni lii bokk arrangé ko amu leen suñu raqal suñu lépp la ñun amul wax Safa Mbeur suñu raq la woon démb suñu raq la tey suñu raq lay doon suba mm-hmm. waaw am ngeen mën rek mooy li wax jaay so ko am na fi mbër yoo xamante ni te il faut ñu xam affaire ah. mm-hmm. mbër bi ñu a faj mm-hmm. mooy kii mës a kii mës a ki mës a défendre équipe nationale benn yoon sol couleur équipe nationale défendre ko hmm. kooku bu amee jafe-jafe état war na ko mën a couvrir hmm. mais mbëru mel ne Papa Sow équipe nationale mosoo défendre drapeau Sénégal hmm. feebar na état di la war a faj ko fenn da wax loolu neex loolay dëgg tey ku ne Double Less ko jëlee euh, faj ko yoon la Pape Diop Boston ak tant d'autres man nangu naa ko mais comme ah mbër assurance dagg mais mais waaw il faut ku fi amul oto am nga moto wala am nga loo assuré assurance bu dagg ci 10 000 francs nga ne damaa bëgg ñu ma su ma feebaree su ma nangam amul dama assurance de vie am assurance nangam assurance nangam assurance bi la daggal pour pour compétition bi la bu jeexee jeex na assurance bi nga xamante ne tey da nga bëgg bés boo feebaree ñu mën laa faj loolu ku ne xam na ne leneen la feneen nga koy defee lan nga waxante dëgg wala amul waaw loolay dëgg. am na solution mën na euh, bi nga xamante ne amal nañ ko tey euh, ñu war a jooy. day jooy li wax daal euh, comme ça euh, service euh, étatique yi nañu nañuy ubbil suñu ay bunt jàppale ñu à part loolu amul leneen lu fa nit mën a wax awutal leen arène national teg nañ ci ay conditions amul man laa gis amul leneen. mais mais ci ñu a tëjee rek euh, ko fi social. waaw ko ñaanal dimbal. waaw euh, keroog gis nañ mu euh, mhm. i jafe-jafe ci làmb président Macky Sall tey loolu tey loolu tey ñun la war man sa bokk tamit xam nga bàyyi naa bëre. Mhm. te jii dañ ut ñun sunu benn association boo xamante ne mhm. ñun dañuy dagg suñu xaalis pour ñooñu wala ñu dagg suñu xaalis wala ñu ñëw ñu dagg suñu xaalis pour ñun ndax état lay doxee de booy fay IPRES pour woo retraité la mais fayoo IPRES defoo dara ñu ne Père Ali feebar na ay mbokkam ñoo ko war fajal faj boppam na waxan dëgg rek affaire nag bu dëgg neexul moo ko gënee bu gëneen gisee benn affaire yaakaar ne ne commencé dafa tàng wala dara mais boo boo préparul sa retraite nag après sa retraite day métti mais kii tamit Père Maxime fa taxawal lamb taxawal waaw mais Gris Bordeaux bu waxalee askan bi rek man dew moon man dew moon mais dama ko rafet rafetlu dama ñëw xool li Gris Bordeaux wax seetaanaat ko ma xam ne li li ñëpp waroon wax Gris wax na ko bu Gris Bordeaux wax ne nag c'est à saluer ko ci félicité loolu laa ci am lu ma ci wax kon seen bopp lañ lan ngay wax waaw seen seen bopp mooy lan dama bëgg xam damay dégg am na dinaa kàddu mais seen bopp lañ fa a génne ku mel jël na kàddu Balla Gaye def naa jël ah dew moon mais def naa jëlul kàddu mais Balla Gaye lan la war a mën a président ànd naa ak président bi ko xam mooy Gris Bordeaux Gris moo koy waxal xëy na ba soo audience ak président toogam côte à boo xamante ne dina président fii am na lii fii manqué na lii fii manqué na lii Balla Gaye mën a wax ak président mais bu ànd ak association président moo war a wax moom warul wax. d'accord ndax gisoo ni tey mbër yi utiliser ci li ni mel. ndax ay artistes mais coo nee coow lu ni topp leen da leen joxoon paas am ay quelques personnes yu am ay ay xëccoo mais bu du loolu moom dara amul. waaw di jaajëfal rek nga xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal moom ñun ñëpp ñoo ko bokk nañ ko rafetal rek nga xam ne moom lépp Sénégal la rek quoi ñaan dal yàlla si yàlla doon di jàmm jaajëf ok jaajëf